Baxdaat nag man ñëw naa fa gàmm gi buñ koy set euh, def nañ léegi ñaar fukki at ak ñeent daanaka ma koy gàmm ci ndigalu sëñ Saliou mii nga xam ne moo ma ko joxoon waxoon ma ne ma ndax ñetti fan a def gàmm ma dem tubaab di gàmm ji ba ñëw mu ne ma delluwaatal foofu nga gàmm ji mu ne ma boo delloo nga gàmmu fi dey sa turandoo ba sa maam ju tedd ja dana la fa fekk ma dellu siwaat ñëw ma gàmmu si yàlla def gàmm googu di dox ci ndigalam di dox ci ndigalam ba at yi mujj mu wax ma ci yi ma ci wax loolu nag dañu lit saa su nekk ñu koy ñu koy taxawee ci taxawaay bii ba mu def ñaar fukki at ak ñeent ci ren Baxdaat it di sanc boo xam ne nii ñu ko waxee léegi rek ci nekk ci fukki at ak euh, juróom ci ginnaaw rek laa ko sanc si bi ma fay demit lenn rek moo yóbbu woon foofu mooy rawale sama njàmmug yàlla ndax doon naa xëy booba parcelle yi ba nekk ak barab yi ba nekk bu 9 heures 10 heures jotee ñay siyaare seeg ñay ñaanlu seeg ñay nàngam doon na am tuuti lu ñu mujjoon di tënk ci man ma doon daw dem foofu di fa toog ci taatu garab ga ba takk fa benn xayma bu ñu daan yendu fa la ñu daan nekk ba julli timis ju liggéey ma dëpp dellu bi ma fay tamit fekkuma fa lu dul am ngeer fekkuma fa it lu dulum ñax tabax amu fa dara amu fa waaye amaana barke bi alquran am ak toog gi ñu doon toog foofu xëy na di jàng téereb yàlla bi tey fu mu àgg rek barkeb alxuraan a ko àggale tey nu mu mel rek taar bi alxuraan taaru rek loolu moo ko fa àggale ndax lott nañu ci ñun ci man ca dara ndax koo xam ne tey jii sa néegub àddina sax waragul a sotti rawatina nag ñu ne da dëkk kon nu mu toll rek yàlla rek ni tollal ak Serigne Touba mi nga xam ne fu ma jëm jëmee ko fa mu nekk dëkk boo xam ne. ñii ma fa bokkal dëkkit fii ñu toll it maa ngi sant mboolem dëkkandoo yëpp ndax ñoom ñëpp tënk nañ seen bopp ci diine tënk seen bopp ci yarit te doon nañu benn ba fii ñu toll nii it tënk nañu ñoom seen wàllu boppit ba nekk benn mbooloo moo xam ne taxawal nañu suñu délégué de quartier boo xam ne incha allahu rabbi lu fay dox ci biir yëpp bax daat dina ko doxee ci ñoom kër yooyu yëpp nag tey ma koy xamal chef de service yi fi nekk muy ni ñu ko waxee sànq ci barab yu nekk kër yooyu yëpp dañuy gàmm gàmm gi du kër sëñ bi rek waaye nañ xam ne quartier ba yëpp mooy gàmm kon lépp lu ñu fay def rek yamul rek ci kër sëriñ bi waaye ci quartier bi yëpp robinet SDE bi nga xam ne ma nga ca kër ga ba ñu ma gasalee ba indil ma tuyau bi may leen kër yi ci des ndax am nañu ñu ne kër yi amagul may leen man du ma ubbi sama robinet kër te kër yi ci des seen ndox xelliwul kon nañu demaat ñun ñëpp nu bokk teen bi nu yàlla boole ñu fay bokk di root ba fii ma tollu man sama robinet mat na ñeenti at ci ba tey robinet bi musta xelli ndax kër yi ci des li fekk amuñu robinet man sama robinet du xelli kon nag man li ma ñaan yàlla mooy fépp fu ma jëm yàlla naa nekk njariñal jaam yi tam bañ a nekk sama njariñal bopp ndax sama njariñal bopp rek bu dee moom rek la nag li may faral di wax am naa lu ma mën a tëddee ci almadi gële ma dem toog foofa borom xañu ma booba wërsëg waaye fii bëgg naa it yàlla sama borom def foofu ma nekk ku may dimbali dimbali ma ñooñu ku may dimbali rek ndax fépp fu ma jëm dafa war a nekk njariñal jaami yàlla yi ci wàll wu nekk ñu ma bokk ak ñoom taw feex am fa jàmm am fa loolu rek laa fa bëgg kon maa ngi sant mboolem chef de service yi nga xam ne teew na nañu fi ak kilifa yi nga xam ne teew na nañu fi ah di leen sant ci lépp mën nañoo jaar ci service bu nekk waaye service bu nekk déglu naa li nga wax li nga waxit dugg si na ci man jàll si na ci man dégg naa ko ba mu mat sëkk ñoo ngi toog di leen teewlu yépp di sant it ci taxawaay bi nga xam ne boobaat tey xërte la ci àndal taxawaay la ci àndal ànd koog équipe bi mu ko ànd ak sous préfet mi gi muy sàkku léegi ba di ko sàkku ci ci ci ci euh, sous préfet boobu nga xam ne kooku yàlla dafa def ne ndaam gële gi sama dëkku maam am fa la mujjee nekk jóge fa dikk Cees fekk si ma bi mu ñëwaatee yàlla cërale ko maa moom it fi ma nekk moom foofu lañ ko indi kon ñu am ay kóllëre yu yaatu yoo xam ne kóllëre yooyu rek koy dox kon nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëmaat yàlla bu baax di gërëmit Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul di leen sant bu baax di ñaan yàlla daal